Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna tey ñu ngi jóge ba Dakar tey ñëw fi nga xamante ni mooy Kaolack buñ nee kawlax nag fekk fi ay jigéenu jàmbaar fekk fi jigéen yu gëm seen bopp fekk fi jigéen yu mën a dóor waar tey nag ñoo ñoo am seen benn association boo xam ne ñoom dañ koo taxawal seen biir association boobu nag lu nekk ngi ci dañuy defar lu ne muy saabu di eau de javel di kotol amul lépp nu loo xalaat ne rek duñ ko ci defar te lépp ñu ko ci defar dama leen di bàyyi ñu présenté wu am na na ku ma taxawal nii yaay booy ñu ngi lay siyaar baax a maa ngi lay delloo ziar di sant gannaaw bu ma sante yàlla jull si yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sant samay waajur euh, maa ngi gërëm ñëpp waaw di jii ñu gis ne tey yéen a ngi jógee tey ba Dakar tey yéen a ngi nii biir kawlak te buñ ñu kawlak fekk fii jigéen ñoo xam ne jigéen ñu gëm seen bopp lañ tey lan moo waree seen association bi lan la. effectivement euh, association bi assif la euh, association solidaire internationale des femmes entrepreneurs léegi muy law di law ba doon nationale c'est une association internationale léegi nag man maay présidente nationale bi léegi euh, bi ñu demee ba def ko réseau national cellules yi dans toutes les quatorze régions di Sénégal ñu ngi fa. léegi nag dañu commencé tournée nationale ñu démarré ko fii Kaolack léegi waa Dakar ak région yeneen yi yëpp ku si nekk sa présidente moo la teewal comme déplacement bi ñëpp mënuñ teew mais ku si nekk sa présidente dafa ñëw teew ñu boole ko nag di def yeneen ay activités si journée bi daal journée scientifique la daanaka. maanaam euh, maanaam comme ni nga ko waxee tey ji euh, seen teewaay fii nga xamante ni mooy ci biir Kaolack ku ci nekk ki nga xamante ni mooy seen jiit moom moo la teew parce que. maanaam ñi nekk ci biir ñëpp xajuñu fi moo waral tey kenn ku ci nekk rek ki nga xamante ni moom moo leen di représenté moom moo fi ñëw teew tey jii li nga xamante ni tey commencé ngeen ko tey jii lii mooy seen première édition wala bii mooy seen deuxième édition. waaw en fait bii mooy première édition parce que réseau bi mu ngi sosu le 21 novembre bii rek jàll door a jàll mais si kaw loolu euh, le 17 mais bi. Euh, defoon nañ euh, le 17 avril du moins defoon nañ suñ tirage Màkka euh, nit ñi ñu ngi cotiser di doxal ñu def ay ay cellules cellules cellules mun naa see lim cellule pèlerinage mekk boobu ñu tiré coopérative d'habitat ñu def ko une assifienne un toit pour bépp jigéen bu nekk ci suñu biir ñu ñaan yàlla nga am dëkkuwaay ñu def coopérative alimentaire CMA multifonctionnel nga xam ne dañuy dóor waar la daal parce que dañuy jënd di jaay di jaayante ubbi suñu fas yéene ubbi ay kiosque ay boutique asifiem euh, ñu kii yaati tamit. Euh, euh, maanaam entreprise daal. entreprise dañu bëgg a taxawal entreprise bu mondial boo xamante ne waxuma la national mais mondial entreprise bu mag a mag lañ bëgg a kii parce que dañu am ay représentant extérieur Adja Roqaya Ndaw mooy suñ présidente internationale moom moo ñuy gën di initier sax. ñuy gën di toog ñu tamit jàmbaar njàmbar njàmbar ñu nag ñoom euh, ba Diouf ak bépp euh, béppi présidente Céline toog waxtaan teg yëpp sur table doxal même euh, mutuelle de crédit sax tey jii na ñu commencer di def financement di kii suñu bopp daal financement interne parce que kii yaguñ daal. ok maanaam ci biir wax ji daal mooy maanaam instant yi daal taxaw ngeen dëggal ngeen seen bopp xam ngeen fi ngeen war a jëm. te yéen ay jigéen ñi gëm seen bopp ngeen état nag gis ngeen ko nag addunaa ngi nii parce que bu ñu àdduna nag àdduna ngi nii mooy tey gis nga tey jii ñii suñuy yaay booy lañ tey ñoom mënoon nañoo mënoon nañoo jug tey jii xam nga lu ñu am yamale ko seen biir kër def ko leneen tey ñoom entreprise lañ jël taxawal ko jeunesse yi bari ñu ngi ci ku ci nekk yaa ngi ci liggéey di ci gis sa bopp ba ëllëg ci biir tey ji mën nga jël sa doom tey formé ko tey ci biir entreprise boobu tey ji yaay booy tey su la bàyyee tey ji dernier kàddu bi tey ji lan ngay gën a lancé ñi nga xamante mooy wàllum état bi pour ñu am taxawaay boo xam ne yéen incha allahu rabbi pare ngeen pour état taxaw leen waaw balaa may wax état damay wax suñu bopp dañuy suñu bopp liggéey liggéey ba état gis ñu xam ne ñii dañ ñu war a jàppale ñu jàppale ñu mais maa ngi lancé appel état pour mu ñëw nag gis li ñuy def ba xam ne ñun ñu jar a jàppale lañ ministre ministre de la moom maa ngi ko koy lancé parce que jigéen lañ euh, moom jigéen la moom moo représenté jigéen ñëpp ñoom ak Marème fay Sall responsable yëpp ñu nekk ci état bi ñu ngi leen di lancé appel ne dañoo war a ñëw na xam na kumpa bi nekk ci suñu euh, réseau bi. parce que ñun ñu ngi liggéeyal suñu bopp di dox di defar di dindi di kii te gisaguñu benn ndimbal suñu propre moyen la ñuy demee waaw suñu site yi ñu am ku nekk fi mu ne nii am nga say terrain. boutique kiosque yi ñu ngi commencé di alimenter par benn benn benn ku nekk up ak yeneen ak yeneen daal waaw. kon maanaam noonu lañ koy waxee rek am na nag lu xew nag ci biir li xew ci biir nag sànq nag dugg naaf ba am lu may yëngu nag di ngeen ko gis noonu ci écran yi mais nag jeexagul. pareeguñu parce que am na ñeneen ñoo xam ne tamit war nañ leen jël na tamit nag nekk nag ci wet gi dinaa ko jël nag mais nag ci kanam tuuti la jëm nag dégg nga wax dégg ki nga xam ne moom moo gère nag seen communication moom laa bëgg nag mu ñëw jege si ñun nii mu doon nag suñu yaay booy yaay booy maa ngi lay siyaar bu a a baax auzu billaahi mina seytaani rajiim euh, bismillaahi rahmaani rahiim euh, bu ñu jullee ci yonente bi sang-sang ci Medina di ñaan suñu ñaari waajur ak suñu wërsila Alaaji Fàllu Mbàkke suñu sëriñ Euh, tey ba ëllëg ak euh, kim ñu boole mi sëñ Abdou Karim Mbacke borom makkaanu maxaa ndax moo ñu puus gunge waaw maa ngi nuyu nag asifee yëpp di ko njëkk ci présidente internationale bi nga xam ne tey moo waral lii euh, grand retrouvaille bi ñu def kaw la fekk si présidente nationale Adja Ndeye Birima Taw idée bu mu jël la pour jigéen ñi bëggatuñu ñuy sonn di xeex ndool ci biir Sénégal di xeex ndool ci biir réew mi tax di xeexit ñàkk dëkkuwaay ci biir réew mi ba tax muy kiit yi euh, coopérative habitat euh, ci femmes asifin yi euh, am nañu ay site am nañu ay AIBD am nañu Kër Ndaamloo am nañu Mbambirool am Sangalkam am Thiès am Pout macha allah fépp la ñu am Lac Rose te fu ci nekk nag dafa jël benn jigéen mare nag ko jox ko ko muy liggéey di gérer am nañu ay ay tool di béy agriculture macha allah mais kenn seetaanuñ nag lu présidente internationale ak présidente nationale Adja Ndeye Birame ñu fekk fii tey Kaolack tey nag ñu ngi fii ñëw taxaw ci euh, taxawaay pël njaboot ndax ñun njaboot rek mooy ñor fépp foo ñu woo ci njaboot rek day ñëw wii si la ñu ñëw nag lëkkaloo ak ASIFE yi ñëw lëkkaloo ak président Ndeye Birame Tew tey ñëw fi Kaolack bi fi ñëwee suba ah njëkkee nañu may leen formation Javel daal di leen may formation euh, transformation physique la dujum ah ñu ngi nii di leen def formation kotol euh, mooy liquide njaboot kon ASIFE yi dafa bëgg jigéen ñëpp liggéey. suñu jegee ci wàllu boobu euh, am nañu bitig boo xam ne bitig témoin mi ngi jam ñaajo ki ko yor mooy ajatatu Fat Diouf macha allah jigéen ñi kenn toogatul ku ci nekk yaa ngi ubbi sa bitig man xam naa ci dara ndax taxaw njabar président yëpp yoonu seen bitik di dem di jaay di jënd euh, formation yaa ngi fi tey jii liñ fi ndekkee liñ def yëpp ay xeetu pat la ah boulangerie baa ngi fii ci présidente national bi muy liggéey nag ak waa Kaolack di jàppale jigéen di Kaolack moom it jàngaleen pâtisserie jàngaleen sariya tey mu ñaanal leen formation may ko jigéen di Kaolack kon gàcce ngaaraama ndey birama tew moom dañ naan ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sëriñ macha allah su ko neexoon rek mu ne ah salaire yi ba may liggéey maa ngi ci état bi hôpital laay liggéey waaye dafa gestu askanam gestu jigéen ñi fàttewul jigéen ñi ndey biram fi nga bëgg a yóbbu asif yal na fa egg ci kàtt suñu borom yal na la yàlla la fa cat kontaan nañ ñun ñëpp nuyu ñëpp nag bépp présidente pour rek boo xam ne yaa ngi biir asif ñu ngi lay delloo njukkal nag di ko teg coordinatrice bi euh, madame Mbacke Khadija ñu ngi ko fàtte ñu ngi koy ñaana ndax waroon a teew fi tey dafa am empêchement mais macha allah loxoom ñëw na. Euh, Awa Faye Mbambiroor teew na fi présidente Paul la kon nag euh, ñuy ñaan rek ñu eggale suñu sago macha rafet na tey rafet na dara manqué fu monsieur yaa ngi fi loo namm rek laal macha allah. defe naa nag kon lii rek laa fi am lu may wax yal nañu yàlla may ñu eggale suñu sago ñun ñu ngi nii macha allah ànd ak présidente national Adja Ndeye Birame jërëjëf. yeneen ko gis noonu moom la wax na ba pare def na la mu war a def li ci biir nag laa leen koy wan li ci biir ñoom li ñuy def laay ñëw léegi wan leen ko ci biir ay jàmbaar lañ ay jigéen di gëm seen bopp lañ jigéen ñu xam seen bopp jigéen ñu mën a dóor waar li ci kanam nag rawati bët man ak yéen tey jii ci biir te dara du sedd. waaye balaa ñoo tàmbale bépp takkaay boo am rek da nga ko jur soo say gant tablier dindi accessoire yëpp dañ koy def léegi boo amee potu daal potu daal un litre da ngay def ñeent ba dafay ngees potu daal un litre da koy jël def ko sa récipient raxas ko ba mu set da nga koy def ko sa récipient raxas ko mu set jël tame génnee ko ndax bu bañ a am suuf maam ko nag bu bañ a am suuf boo ko tegee boo ko tegee nga jël naanaay ci colonel sa naanaa ordinaire naanaa yëpp daal ngay jël boole rek ak set macha allah def si trois litres d'eau macha allah macha allah. fay gaz boo fay gaz bu ko bàyyi ci gaz bi bu ngeen ne marmite ngay def du ngeen ko bàyyi ci gaz parce que cin yu mag yi kii gaz dafay boo tegee rek cuisson day continuer da ngay gis rek affaire yaa ngi bax te loolu muy baxee noonu day sa liggéey parce que def nga sa numéro dégg ngeen selon yéen bi temps de cuisson bu ko mënee xam rek mooy fi ngay tracé affaire bi toog cinq minutes di fermer ndànk-ndànk wala fermeegul bu fermeewul rek nga xam ni baax na mu kii mooy gën a fort sirop bi xale di naan dégg ngeen sirop yi ñuy jaay si pharmacie yi lii moo koy gën a dëgër tuuti nga def si oto automatiquement citron bi mooy kaasu ataaya bu dee syndicat bu mag ngay def kaasu ataaya ba mu fees citron mais citron yi wax ñu ne nga jënd ndoxu limon wax ñu ne nga dem jëndi citron poudre bi mais doomu limon yi dañ leen wax ngeen jënd ko dagg ko def ko si kaas ataaya ba mu mat bu dee lii ñuy. wala ñu naan maa leen teel a gis. ngeen jël ko nii ngeen jël ko nii bu ñëwee nga jox ko waaw. mu bu jël daal tàkk leen. Eh, ah def naa noonu ah. waaw professeur. naam su. Euh, fee ndox mu tàng la. ndox mu sedd parce que dañu yàkkamti. waaw heure bi dafay dem. waaw damaa fooñ en attendant ngeen ndox mi tàng di ñëw mu ñëwee. waaw dama seddali 3 litres bu nekk. jeex na waaw jeex na mooy bisaab bu xonq bi. mooy bisaab bu xonq bi quand même. vimto ak. en retard. waaw merci. voilà. boo bëggee ku la expliqué waat. rétro da ngay dem suñu ñee toogoon ci. dégg am na ko soo jublu sama xarit bi allo. voilà kii mën na la expliqué comme yow yaay client da ngay ñëw léegi expliqué parce que doo mën a delluwaat ginnaaw. doo saa prendre dégg nga expliqué kon dégg nga. ak ñoom mun ngaa taxaw lan la xew. léegi ñu ngi noonu dégg ngeen. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu man madame Sakho ma leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ji jàmm ji jàmm waaw su ngeen gisee ah xam nga bu ngeen gisee marron bii nag tubaarkaal la ngeen war a xam ne Asif taxaw na Asif taxaw na. jigéen ñi faw ñu xam ngeen ne ay fo jigéen ñaa ngi liggéey ñu ngi def ay formation ah, macha allah def eau de javel boo ko gisandoo eau de javel baa ngi nii hmm? ah, jigéen ñaa ngi nii formation baa ngi nii tubaarkàlla ñoo ko gisandoo fii buy bii lañ fi nar a defar. ak bisaab ak bisaab. dañuy defar paree defar lii du ay fodé. waaw lii fowuñu réew ñu dañuy liggéey ay jigéenu Sénégal ñooy jàmbaar moo tax dañ leen war a jàppale dafa leen ay financement jàppale leen bu baax a baax a baax euh, dina baax ci ñoom lool. parce que ay jàmbaar lañ dañuy teel a jóg guddee tëdd toppatoo kër ga toppatoo sëñ bi toppatoo xale yi ba pare daan seen doole tubaarkal da ngeen lool neex na Sénégal jigéen ñi ñooy jàmbaar wala bopp xam ngeen lii du ay foode ba pare nag wax dëgg yàlla maa sàllaa nga def seen ñu doolu bu jekk bi euh, Touba Adama madame Mbacke madame Mbacke waaw yow pour lire après moom nga ko ñu ngi woo madame Mbacke Paul Guédiawaye bismillah mu ngi nii defal jël waa Kaolack ngeen nekkoon. cinquante mille ci madame Mbacké macha allah. léegi. waaw. Thank you. Adja Ndioba présidence bisimilah Serigne Makka day biir ci xool bisimilah Seydou Kante gi. Khadija eh, caméra ma ñu ne nga animé kii nga filmé. journaliste la nee na bii moomoo ko. ah yéen a jël as bu ko jël ci. waaw. da nga dugal da nga dugal ci groupe bi. allah. waaw merci naa TikTok yow. naa TikTok yéen yéen ngeen moom seen télé ba xam nekk naan fan ngeen jëlee commune bi. bu Adama ah, Ngom. bisimilah. E benn ngoog. ñaara ngoog. tey ñett. ñeenta ngoog. caggal ga ga goɓɓe fi ɓedde machallah Paul Diagne Paul Diagne Koudia Faye simina ma ñaar ñett tey ñeent ah juróoma ngoog dafa toj awa fay Mbambilor bisimila ma kon Mbambilor bisimila ma Bambilor waaw Bambilor aw ma kango waaw waaw sa morom jaru bay boo na ma rek maa doon mi ngi mu uuf yaa ngi wax pàcc pàcc amul

Amin Ndiaye Bar ñi benn ngo ñaara ngo ñetta ngo ñeenta ngo juróoma allah waa Bar ñee ngoog

olmasın. Yemekte olamadı. Mahallede kapanmadı. Pol Kaolack kat. Grand Pol Kaolack. Grand Pol Kaolack Ndeye Birame Diouf. mu ci mbay yaa nga fëm di ko saali ndeex nay noon soo. Bismillah. Macha Allah. Ñett a ngoog. Ñett a ngoog ci Ndeye Birame. waaw ca ngàll ga waaw ba fa toj ndax day dugg may ga génn xëy soble day la rukkante gi de sa mbagg toqi xeer ja xadi ja Xadija bisimila ma

programme mbaaw Khadija bisimila ma ñetta ngoog ñeenta ngoog juróom macha allah you comprend it? Yes. Okay, yàlla laa la wax. Pour kunun, Ismaïla Diop, Emma Diouf Emma, Kooku du ñëw na ñëw na ah léegi ku ñuy oo léegi ku ñuy oo général ko ñaar ñetta ngoog ñeenta ngoog cangaalo ga waaw ga ngoog de nday ami lay nday ami lay Ndeye Khady Sall. kan. Ndeye Khady Sall. Ndeye Khady Sall. bisimilah. day xa di cinquante mille ak jàpp. day benn sekk. day benn sekk. waaw da nga koy transféré man mii maa ngi cent mille. déedéet. dugal ñaata nga def dugal moo lay transféré dugal.

ndax day dugg may nga génn xay soble. Ndeye Amy Leye mu ngi fii. Ndeye Amy la koy def tey ba ma lay kenn sonn nag dégg jëm ak tubaab maam xarit Dieng en attendant cent millions yi léegi ñu des ñu point. yéen nee la de. Cerno Faati ni islam nga ci jaay de gis nga am na ci na nga bala bi ñaar ko benn rambaay mu ne beneen yoon xëyee commencé ci bisimilah rahmaani rahim eggale alhamdulilah rabbil alamin ci ngoon gi yal nañu yàlla may rafet xeet ci barke a takk sanga sagi ci barke allah ci fàllu sama wasile sama bunt nga xam ne lépp lu ma ko ñaan mbàkke moom fekk sama si euh, di war ne tey dañoo ñëwoon Kaolack biñ ñëwee dañoo fekk si présidente euh, nationale mi nga xamante ni euh, présidente internationale moo ñu booleeg moom muy Adja Rokhaya Ndaw borom assif international borom coopérative euh, borom marché borom euh, bétawaar euh, borom pèlerinage macha allah ki nga xam ne bëggu jigéen ñi na yàcc ki ne jigéen ñi dugg leen leen liggéey ndax ñaar loxo ma takk tubéy waaye ñaar loxo may takk sër boole nag ay jigéen ñi jàmbaar yoo xam ne dañuy teel xëy dugg teel a wàcc te bëgguñu dara góor bëgguñu dara lu aram macha allah diine rek moo leen ñor lakk tey nag bi ñu ñëwee fii ah may nga ni ci ay dafa nañ leen liquide njaboot asif ndax ñoom li ñu def léegi asif rek la ñuy wax kay asif la macha allah af cat dëgg la daal leen defal jus ànd ak madame Mbaye directrice euh, formation macha allah nga xam ne tayul dara benn yoon saa yu ko woowee mu jóg dafa leen javel njaboot javel euh, njaboot nag produit nday xadi sàll la sëñ sëñ Abbas Sall boobu fii nag jigéen ñi fi taxaw yëpp macha allah ay femmes ñu ngi ci koko ji njeer bi ñu ngi ci saboo ceeb bi nga xam ne boo ko sangoo doo am benn gom day dindi cere dafa xam def ak fii tàng kon nañ ko doonoon def mais dañoo bu ñu day dog waaye bu ñu yàlla mayee ba sedd ñëw incha allah daay ñëwaat dafa def gàtt suñu borom nga xam ne di ko mën a jaayee pour 3000 dañ ah, euh, bi ñu toogee nag ba heure bii def nañ suñu solidaire solidaire nag benn groupe boo xamee ni euh, madame la présidente Adja Roque moo ko naan femme investeur jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey ndax dafa teg marché marché bi nekk jam ñaajo euh, directrice euh, programme bi di Fatou Diouf Adja Fatou allah euh, di jox jigéen ñi ay produits nag ay tonni ton ñuy liggéey namuñu daal macha allah la jam yàlla na eggale sago mu ne comme yéen ngi def nii dama bëgg ngeen ut li ngeen di boolewaat seen weccet su ngeen koy def chaque fin du di ngeen ci mën a régler seen i problème di ngeen mën a pousser seen ndax sax euh, dafa yor ay coopérative nag ndaamloo AIBD oh maa ko moom hmm? macha allah Keef maam Adam Ngom hmm? euh, maam euh, Mbambe Loor Kër Ndiaye Loor sàngal kam yëpp macha allah waaye yéen kii naa jigéen ñi kaa leen di kër yi ngeen dëkk sàrde leen seen bitim ah kaa de formation. waaw kooku bëgg na ngeen dox bëggul ngeen def correction parce que xam na eh, dëkk bi dafa métti góor ñu bañuñu bañuñu waaye nag ah ñaar loxo day def ne ñaar loxo day dolli ñu dajale xëy na tey am fii neuf cent mille bi ñu amee neuf cent mille di téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ah ñu ne ko premier natt la poñu loterie mun na ñàkk ndax tax mun na ñàkk dañu ànd ak benn partenaire bu taxaw njaboot bu ñoo ànd ak yéen ci lépp nag bi mu ñëwee euh, ñoom 500 mille ñoo nag mais dafa am ñoo xam ne ñoo am investissement ñu joxe 350 mille te xam nga Dakar fii dafa métti transport beeg yooyu ñu daal di leen jox 450 mille jox ndey béréb bi ñu fekk si président national cinquante mille mais à part loolu trois jours ñett jël ñu dañuy lotari incha allah di gàtt suñu borom ndax boo gisee rek lu tax rek la tax a tax moo tax nga tax. bi ñu noonu ñu ne comme dañoo ñëw fekk si présidente euh, nationale ñu jëmbal ko yendoog moom ba nga matuñu dara du jus du boisson du méchoui du ay ginaar yu ñu euh, defar ay poos garaat du dara dara loo xam ne namm nañ ko macha allah la cat yal na fa jàmm yéen ñu ne kon nañ dem seeti euh, suñu coordinatrice madame Mbacke ndax kat wax dëgg yàlla mu ñaanal ñu. la 14 biir ñëw bi ñu yàlla may fekk ko ne nañ ko génne mais bu ñu demee ba ci madame Dac incha allah foofu dañ fay retiré nag génn fa ñaari président ku mënta doon ah ñoom ñu daal leen seeti lépp loolu lañ fi def tey jii ñuy wax nag su rafetee xëy yéene bi la mu ëpp su ñaawee it yéene bi la waaye nag dañoo am suñu kilifa muy Ndeye Penda Seck waaw xam ne daf ñuy gàggante macha allah yal na jàmmam yàgg. amiin waaye fekk suñu kilifa yi mu faj macha allah. nga xam daf ñuy conseillé liñ euh, koy waxati lañ naan macha allah intellectuel la jàng na jàng na xam na xam na doomu aadama macha allah mais dafa toogaat naan kaay la ñuy investiraat liggéeyaat mais su ma neexal mu pare toog fee am naa sama salaire du ma def waaye boppam solal la ko doomu aadama moo ko solal kon yàlla nga gudd fan téeméer ak juróom-ñett ak ñaar barke Xaadimu Rasuul kontaan nañu. Kaolack eh, wàcc na ba zéro zéro lii nag moom ñàkk cee bokk wóolu te ñëw nag bala ngay daw dañoo dox ndànk àndandoo ñun yaay yaay yi doom rek mooy ñor suñu amee fu ñu leen dugal dëkk am lu ñuy jaay di la mosal ñuy lekk ñuy liggéey sant suñu borom luñ fekk laa dem yàlla ma ñu gudd xam ne ak wala wasalaam maa ngi kontaan yéen waa Kaolack yépp baax ngeen yaatu ngeen. yaru ngeen laabir ngeen da ngeen di téye rek macha allah kaa bàcceel na la baakaara baakaara kontaan naa ci yéen macha allah yal na seen jàmm yàgg yal na yàlla bàyyi ndey gërëm a teew sama togu leen ko su leen neexoon bu leen wooyee ngeen bañ a ñëw waaye da ngeen ñëw dal ko rek ni dar maan ko bàkk xaadi ba sool li neex na daca maa xarit teg ci li neex wax je jay xam naa wax nga lépp ba mu jeex sax macha allah xanaa rek ma tëj rek kon nag yal nañu yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit ñu kontaan nañ ci suba ba léegi ci suba ba léegi biñ fi ñëwee ba léegi macha allah kontaan nañ président national Rokhaya Ndaw Rokhaya Ndaw sama mag kooku sama mag la sama mag sama doomu ndey sama lépp di la wax ne lii nga sumb yal na ci yàlla defal lu kawe sa jox di la gërëm nag di la la wax ñaaw lépp rafet sa xalaat lépp rafet macha allah yal na la yàlla bàyyi yow boole bu la plan bàyyi sa kenn waaye yow sëti bu sëti bu doo kenn dem loolu mënut a ñàkk ci yow yow di nga joxe sa fiyaar yow di nga maye xaalis yow di nga dajale mbooloo toog ne nangu na maaral nag da nga doon mboq da nga doon da nga doon sëmu ci mbar yangoor sëm ci kasaali ngeen danay nag lool yow sama bu dem ne la balaa yow fukki fan ak ñaar tàkk ku ne xam na fala man dañ ko du nangu yaayu sati pour seen ku mandoo fen juur sëmu ci mbar yangoor sëm ci kasaali ngeen danay nag lool yow yaay da nga danay nag lool yow da ngaa doon nag lool da ngaa doon mën a wër waxtaane fi yom yow Ndeye Birame ci suba ba léegi bañ fi ñëwee ba léegi kontaan nañ amuñ fi dara lu ñu naqari lekk nañ ba suur naan nañ ba bi bëri na waa Fass maa leen di nuyu di leen tàggat di leen a màgg di leen jox nag euh, nuyoo Adja Fatou Seye. salaamaaleykum wa ma leen di nuyu rek di leen ziar di ñaanal jàmm di kontaan ci waa Kaolack yëpp di nuyu nag suñu présidente internationale bu ñu koy waxee Ndaw nuyu nuyu bu baax tamit suñu présidente nationale euh, Adja Birama Tew ñu ngi koy déggee bu baax di nuyu waa Dakar yëpp euh, di rafetlu seen taxawaay gis nañ seen taxawaay mu rafetee fii ñëw ñu ànd ak Dieynaba Dieynaba ku ñàkk ñaan la moom ñi mu àndal ñi yëpp a baax a a baax euh, te daal ca kaw ca kanam turu baax waaw ñàkk cee bokk nag wóorut lii nag du ay jàpp leen loolu sa kaw sa kanam affaire bi yow la kenn du ko dindi say mbiram affaire bi yow la kenn du ko dindi say mbiram affaire bi yow la kenn du ko dindi say mbiram affaire bi yow la kenn du ko dindi say mbiram affaire bi yow la kenn du ko dindi say mbiram affaire bi yow la wasalaam merci beaucoup <laughs> jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di sant yéen ñëpp ehm, di ñëpp di gërëm boo xamante ne nag am na fu mu commencé mais amul fu mu fu mu jeexe ehm, kontaan lool si yéen asif yëpp nag maa ngi leen di sant di leen di gërëm ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp maa ngi leen di sant ñi ñëw ñëwul na ñi ñëwul ehm, parce que ñun ñëpp benn lañ di sant nag di ñaanal Euh, suñ présidente internationale wante nag di gërëm sama borom kër sama borom <laughs> monsieur Guèye maa ngi koy gërëm di ko bàyyeeg yàlla ndax moom di di ña <laughs> di laf cat rek di ñaan yàlla rek lafal ñu cat parce que moom carte blanche la ma jox bu ma ko ne Pape Gueye nangam mu ne ma amul problème amul problème damay dem sax ba rus di ñaan yàlla yàlla bu ma ko gàddul àq sax damay toog ba naan yàlla bu ma ko yoral àq. amiin parce que moom wax dëgg fa yàlla. bugguma dama koy ñaanal daal. jot dafa gaaw moo tax bugguma di wax lu bëri si bu doon liggéey ba kaw. Hmm. édition yi bari na. ñu ngi leen di dégg fu ne. Hmm. taxawaay bi nga xamante ni yéen yéen a koy def. di jàngal xay xale yu métier. ngir bëgg ëllëg seen avenir mën a comme yéen fi ngeen jot a yegg. Hmm. leen bëgg a contacter ngir bëgg a jëflante ak lay def ba contacter ak yéen. Euh, xanaa numéro téléphone bi euh, 77 17 21 deux 207 17 21 17 loolu mooy numéro téléphone waaw 77 soxla tey mën nañ mm. la cee jot waaw mais la suba géejewaay incha allah si suñu coordinatrice na nationale Adja madame Mbacke si moom la ñuy dem incha allah buñ demee tamit niñ ko defee fii rek nu ko raw sax lañ koy defee foofu incha allah buñ si yàlla yóbbu géejewaay si xat boobaa kon hmm. tey affaire daf ñoo bett hmm. kon maanaam biir géejawaay hmm. te baa ngi géejawaay kon maanaam boobu écran plat yi la ñuy teg allah incha allah yal nañ si yàlla yóbboo jàmm ma ma continuer nag di gërëm sama mag ñi sama famille di leen di gërëm bu baax nga xamante ne wax dëgg fa yàlla man nit dong laa nag te nag lu ma wax itamit ñoom dañu siy ànd bu ñu kiyee itam bu yàggee dañuy ànd ak man te koñ bi nag aw ma seen ngërëm koñ bi heure bu ma ootee suba guddi ngoon bu ma defee dara sax te yëgalu ma leen ko dañuy ñëw di àkk si di xultu ne lu tax waxuñ ma leen ko kon nag maa ngi leen di gërëm di ñaan yàlla nag ànd bi yàgg taxawu njaboot nag dama leen di bàyyi ak yàlla ndax ñoom ñoom ñooy man man maay ñoom asif la de mais taxawu njaboot ak Kaolack réseau bu Kaolack bi benn la xaw ma lu Macky Sall waxoon ne lan soow ak lan soo soow ak lem a ah, yëngal njoll naan rek laa si xam mburoog soow rek waaw ah, yëngal rek naan mooy njaboot. dañ leen kàddu li nga xamante ni mooy ëllëgu Guédiawaye yal nañ ko fekkee tatal ko incha allah comme que na noonu mm. gis naa nag am na ñuy suuf ne leen loolu ñoom li ci des mooy ñu bàyyi la nga def li nga ah xanaa di leen di ñaaxaat rek ñu gën a góorgóorlu ñu gën a góorgóorlu gën a booloo doon benn te xam ne say kenn mënu koo dam benn bu nekkee benn day yomb a dam mais bu nekkee say du gaaw a dam te xam naa nag tànk yi nii ñu taxaw nii nii jëm macha allah bu bu si yàlla àndee ca rek la ñuy jëm bu soobee yàlla waaw kay bienvenue sur Salam Vision.